yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen ci kóolute gi sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy euh, topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i info kilifa daal ne addu jëme ci li nga xam ni moo di taxawaay réew mi waaye taxawaay bi nga xam ni gouvernement bu yees bi daal dina ko war a amee bu baax a baax ca loolee mu daal di addu jëmee ci li nga xam ne sax moo di sénégalais yi la ginnaaw bi nga xamee ñoom ñu daal di fal kii fii di président bi bees bi di wuyoo turu Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu nekk li nga xam ni atum 2012 dañaa gisoon lenn ci ak pàcc mën nañ ne ñoo fi daal di jëlee président ba fa woon di président maître Abdoulaye Wade loolu sax la daal xam xamle muy yaanaamaar def nañ ci liggéey bu am solo waaye bii mën nañ ne askanu Sénégal gi nekk biir réew ak biti réew ñëpp ñu daal di jóg jële fi ki nga xam ne moo di président Macky Sall ndax kat li lu mel li nga xam ni amoon nañ ko yaakaar ci moom dañaa gis ni daf leen décevoir carrément ba tax na ñoom ñëpp le sénégalais yi daal di jug massivement daal dem voté ji ginnaaw bi nga xamee moo ah, yemoo vingt 2024 gi élection yi UESU te loolee ñu daal di fal seen président bi nga xam ni am nañ yaakaar bu baax a baax war naa mën a taxawee li nga xam ni moom la Sénégal daal di bëgg te loolee sax muy xamle bu baax a baax moom kilifa président bi am nañ ci moom yaakaar bu baax ndax li waral lu mel xale la mën nañ ne te na xale bi nga xam ni yàgg na bëgg li nga xam ni moo di jub ak jubal donte mën nañ ne leaderam bi la di Ousmane Sonko nekkul président waaye mel na ni moom moo nekk président ndax Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw buñ liggéeyee lépp loo xam ni pare nañ taxaw pour def ko ngir askanu Sénégal mucc ay dinañ ko def te ñu daal di xam ne moom kilifa ñu daal di xam ne bu baax lépp loo xam ni président président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mën na ko def ngir la a ba ñi nga xam ne tey jii ñoo nekk ci prison yi daal di génn loolu tamit mu ngi ciy xaar bu baax a baax gouvernement bi yees bi le ndax kat Pastef ak dogg la la bëgg bu baax baax te daanaka moom mi nga xam ni moo di kilifa daal di addu jëmee la ci jamono guñ toll ni dafa jot bu baax a baax entreprise yi nekk ci mim réew di Sénégal daal di taxaw bu baax ngir kat fexe la tout li nga xam ni moo di li mim réew du Sénégal ñu liggéey fi bu baax li nga xam ni bañ a jéggaani benn yoon ndax kat daanaka jël na exemple bu baax baax ci US Gorée mën nañ ne ñoom gis nañ bu baax taxawaay bi nga xam ni dañ koy amee ci defar ay blouson ak yu ni mel mën nañ ne mim réew du Sénégal tamit war nañ mën a am capacité boobee ndax kat ay doomam am nañ ko bu baax a baax te loolee sax kilifa daal di addu jëmee ci xamle bu baax a baax kon nag jamono guñ toll nii moom président ba Diomaye Diakhar Faye ak gouvernement mu ngi leen di xaar ci bépp anam bi nga xam ni war nañ mën a indi lu yees war nañ indi li nga xam ni saa su ne loolu leen di askanu Sénégal di xaare waaye daanaka bu ñu yàkkamte benn yoon ndax kat bu ñu yàkkamtee dañuy yàkkale donte Sénégal day far di wax naan sama yaay daf maa yónni yàkkamte ma dañ maa yónni yàkkamte ma dëgg la waaye gouvernement bu yees bi le bu ñu leen bàyyee rek gunge leen dinañ liggéey ni nga xam ni noonu la askanu Sénégal yi amee yaakaar ba tax nañu tabb leen ci loolee kilifa daal di xamle kon nag jamono guñ toll nii lépp lu am lu nekk rek mooy ñu gunge leen xool waaye teewul nag du ñàkk ay opposition yu fi am yu radical dëgg la waaye mi ci opposition yu radical yooyu lépp mën nañu ne jamono guñ toll nii dafa teel daanaka lu am mu am mooy ñu bàyyi la ñu liggéey carrément xool fekk ay jour ba xam naka la gouvernement bu yees bi daal di tax war a taxawalee moom nag daal di xamle bu baax a baax ci exemplaire boobu daal di jël nii loolu moo waral moom saa su ne muy nekk ki nga xam ne ki askanam lay doon ko nga xam kuy dundee askanam lay doon daanaka kilifa mën nañ ne àdduna artu jëme ci li nga xam ne moo di gouvernement bi yes bi jëme ci sénégalais yi waaye tamit jëme ci gouvernement bi nga xam ne moo di gouvernement sortant di président Macky Sall daanaka kay kilifa kon kaali kàddu yi nga xam ne moom la addu xamale bu baax a baax amul leen li nga xam ne Sénégal askan bi war nañ kaa tiit wala di ko ragal ci gouvernement bi yes le